revue de presse. Aca El Hadji bismillah diggante Idrissa Seck ak Macky Sall mi ah diggante ba yàqu na sëy ba tas na laa ilaha illallah laalal bant gaaw tribune yéen kaay ne yéen a ngi fàttaliku kon defante bi nga xam ne kon Idrissa Seck ak Macky Sall mi doon nañu ko fi def waaw waaw ay passe d'armes yoo xam ne kon maara day taali ca jamono joo xam ne kon Idrissa Seck ak Abdoulaye Wade mi ña ngi doon jàppante jàppante gu taratar ah Idrissa Seck daa mës a jàpp ne premier ministre ba woon mooy président de la république tey mooy Macky Sall mi ah moom la Abdoulaye Wade kon defoon ngànnaay def ko loxo nday jooram ngir mu xeex ak Idrissa Seck moomee Macky Sall moo mais la Abdoulaye Wade kon jëloon ngir mu gën a maa la wax li de Macky Sall ca la taxawee xam le carrément ne parti réew mi du fi am kayit tey te du fi am kayit ëllëg parti Idrissa Seck ba maa la wax li Idrissa Seck tamit ba Macky Sall kon jugee taxaw ne daa soxla réew mi Idrissa Seck ne ko dee bale bee doo fa demee noonu ah indil ñu kon ay gindi ci xaalis bi nga xam ni kon Taïwan joxoon nañu ko fi di fond Taïwan ya nga xam ne lu ci topp ci Macky Sall ci parti bii di APR di ah daal di xamle woon xam nga kon Idrissa Seck laa ilaha illallah yéene kaay gi ne waaye ni ñuy addoo nii ah Idrissa waxul dara ay su xam daal la yónni ñoo jukkoon commencé nag maanaam kon di dal kon ca kaw gaaña l'office yéene kaay ne wax leen nag lan moo waral kon ba mer gi jàppante bi am ah parti wu APR bu Macky Sall ñi nga xam ne réew mi la ñu nekk bu Idrissa Seck ñu leen di ronk kon di leen indi moo gën a merloo kon waa kër Idrissa Seck yooyee maam les kamara xam-xama màcc lool amul benn intérêt di génn kon bennoo bokk yaakaar maanaam ta majorité ba yow ca jamono joo xam ne ñu ñu réew mi ñu fi nekk kon di waxtaanee wàllum politique kese ah le populaire nee tijjite l'école gi day boo sàgganee maara day taali gàllankoor am ca de parce que raam nii ca ñag wala jëm te fa amee kër fa gaaw a génn maar tey taali la ilaha yenn yoo xam ne nag buñ fa sukkandikoo mën naa indi kon ay jafe-jafe ci wàllu njàng meeg njàngale mi ah mooy tënkoon nañ ko ca bari ga nga xam ne bari woon na yëpp maanaam jàngalekat yi nga xam ne maanaam dañ doon grève la waaye gis nga tijji télécole bii 2012 2013 bi boo sàgganee dana am kon ay jafe-jafe te la koy indi nag du dara lu dul ndox mi nga xam ne mi ngi ci biir école yi kon di jaabaa jonge askan wa nga xam ne kon inondation yi mbënn ma kon lor na leen nee nañ leen kon génn leen ca l'école ya waaye lànk nañ ndaare kon tëdd ca suuf ne duñu fa génn te ñaar fukki fan ak juróom ceeru a kon génn nag maanaam delluwaat kon ne pareeguñ sax ngir génn kon di fanaan nag dëgg-dëgg fa yàlla kon ci mbedd mi may mun a fay ne gis nga bu ñu jugee ci école yi ba dem ñun ci mbedd mi la ñuy ne dégg suñu alal yëpp mbedd mi lor na ko lekk na ko inondation yi kon yàqal nañu lépp loo xam ne kon amoon nañu ko suñu kër yi ci boppam kon nit mënatu caa dëkk ndox maa nga tax ñun waxuñu ay mbirum lekk ak yooyee même bu dee sax nguur gi kon mi ngi def ay jéego ci wàllu woowee ñun dañoo mës di lekk li ñu bëgg daal fi mu nekk nii mooy kilifa yi ñu kon ay kër ñu daal di cay dem génn ci école yi bu ko defee benn fan ci yoru octobre bi xale yi kon mën a dikk jàng yéene ngir bañ nag tijji l'école gi am ay gàllankoor ak ay yéeg wàcc ak ay caf yëngal ak ñoomin seen syndicaliste ci boppam kon xam le nañu carrément ne bis bi nga xam ne dañu ko waroon a tijji l'école yi nañu ko puus dat wa ca boppam la ñu war a puus ndax dat woowee du dat woo xam ne maanaam dat bu baax la tay dat wa laa <laughs> ilaha illa la yow ci jamono joo xam ne kon ñi ngi waxtaanee wàllum inondation yi ak jafe-jafe yi nga xam ne kon moom la ñu ci wàllu kon ca biir palais bala juróom-ñetti milliards yoo xam ne kon assemblée nationale ci boppam kon moo koy voté Macky Sall nga dëju kon ci alal ju ñu toll te alal joo jeeju juróom-ñetti milliards ya amul ma fan la war a dugg ak bu fi génnee koy càmbara yoo amul kon ci wàllum fonds politique yo benn journal bu nekk ca France gée moo def enquête ba kon siiwal ne Macky Sall ci juróom-ñetti milliards kon la dëju laa ilaha illallah te kenn nag du ko contrôlé amul càmbara amul dara forum civil ci boppam nee na nag maanaam fonds politique di xaalis boobu bee dañu koo war kon di càmbar di ko yërnu di ko xool la ñu war a xool kay ah mooy Karim Wade ah Le Quotidien yéene kaay ne Karim Wade nekk te juróom-benni at yoo xam ni ko nekk na ko fii ci donkaas gi yëpp avion ba mu doon dawal kon di ko luwee i la ilaha illallah ah maa la wax lii da koo luwee juróom-ñaari milliards yu tegas lëf sept milliards huit cent juróom-ñaari milliards ak juróom-ñetti téeméeri millions Karim Wade kon moom la luwee avion boobu bee ci juróom-benni at yaa la ilaha illallah tey lii Abdoulaye Balde ci l'office yéene kaay ne c'est que dëkk bi ci boppam la dara doxul dara doxu dara ba dara booloo dara doxu fi bi ñuy dikkee ak léegi parti démocratique sénégalais góorgóorlu woon na kon ba yor ab alal woo xam ni kon wu dëju la wu nit kon mën a liggéeyee la dégg te yow nguur gii nga xam ne Macky Sall moo ko jiite nii mënuñoo dem dañoo tële mënuñoo dem looloo tax kon ñuy bëgg a rey kon askan wi naan leen ay ñafi ne kon waaw alal ji nga xam ne maanaam am nañu ko ah jaarale wuñ ko ci yoon ah ñooñee ay sàcc lañ enrichissement illicite ñeng ñeng ñeng patiti patata ne adada maire bu Ziguinchor soor boobee ñuy wax ne ñoom waa PDS ñoo ko sàcc loolu lu am la ñoom Macky Sall nañ dem jëlee xaalis boobee indi ko jox ko kon askan wi moo gën ñu nekk fi kon maanaam di wax ay wax yoo xam ne waxu kasaw kasaw la di sos maanaam ay accusation gratuite réew mi quotidien ne ngir lu rataxal diggante Sénégal ak Gambie gi ah Macky Sall de ndawal Yaya Jammeh ga ca Amérique jee faalewu ko da koo sonobe faalewu ko termine yéene kay ne Macky Sall kay ñi ngi laam-laamee ne vice présidente bu Gambie di Aïssatou Ndiaye Seydi ah Macky daal lànk ndaari tëdd ca suuf kon ah, ca lamb mooy yow kii mbaa du ñëpp ko signe ne fang lu tax Balla Gaye numéro 2 a Sène la signe teg ko bët Modou Lo Eumeu Sène la teg bët ña doon tegante bët day gisante nañu Malick Niang ak Sa Thiès i lamba ja leer na Aziz Ndiaye production kon moo fa jaar laa ilaha illallah yéene kaay gi ne Malick Niang ak Sa Thiès kenn mësta daanu lamba ja kon léegi leer na taxaw na <laughs> cey lii alaaji temps yi ne gis naa ne da ngaa takk sa fit jóoba juba sëtu la joon ngoone la tër lu ma la laaj nga tontu ma barki rasuul laay ma lay laaj nag diggante Sa Thiès mësta daanu ak Malick ñaa mësta daan ku ciy daan boo paree